moom lii daa tàng de ta taalam ventilateur yokk tegal bi ventilateur ay teg ay lekk yi tàng lii. waaw nekk góor nekk góor lu ci neex. da ka war a def. loolu force la. mënuma waa day na waa day na waa baax na xanaa xamoo ne fayal ventilateur fayal. leen laa la toogal toogal. xam nga lan nga xamul. nekk góor neex na de. mais stabilité biñ leen jox. Mhm. moo dàq. ndaxte lii nga gis nii. dama koo liggéey liggéey bu metti damaa génn liggéey liggéey bu metti pour yow nga mën a stable. xam nga ko ndax tey su ma indiwul woon dërëm fii benn fan ñaari fan ñetti fan ñeenteelu fan bi sa kër yaay nga jëm toog fa. dëgg loolu dëgg. doo dem wuti ji lekk ak naan. déedéet loolu amul fenn loolu wax bu neex la rek. su ma toogoon une semaine lekkoo naanoo yoruma ma génn ci mbedd mi yoruma dërëm wala dawuma liggéey di nga dem wuti ji foo lekk ak foo naan dëgg loolu dëgg. waaw di nga wuti ji. waaw léegi nag man bu ma utee stabilité boobu fexe ba manqué wuloo dara ah loo rêvé mu ñëw liñ naan aljana loo rêvé mu ñëw waruma bëgg lu yomb ah? kon man su may rey sama bopp pour yow ci mbedd mi yow da war a rey sa bopp pour man ci biir kër gi li naan ku la nekkal ci naaj bi nga nekkal ko ci kon sama bëggul yow mu ko tuddati dégg waaw sa kanam day nuroog ko faatalaw bi nii